ni ko toggalee ñëpp ko xam. mu ne ni ñu toggalee tarixa bi ñëpp ko xam de. li bëgg wax itam ñëpp ko xam. mu ne dama leen xamal li muy bëgg a wax ñëpp xam nañ ko de. jàng nañ nañ waaye nag si du ñëpp ñoo ko xam de <laughs> waaw ñëpp jàng nañ ko waaye ñëpp xam nañ ko. waxtaan dafa baax rek. mu ne dafa tollook bu nit ñu toogee ñu waxtaan dafa baax. astaghfirullah. mu ne astaghfirullah. waxoo waxoo ca kenn ku dul yàlla. mu ne yow mi koy wax waxoo kenn kenn ku dul yàlla rek. yow yàlla daal. mu ne yow yàlla daal. dàq naa tilim naa. dàq bari naay bàkkaar. bari naay bàkkaar. ñëw na ñëw na bëgg sangu. bëgg sangu. bëgg fóot. bëgg fóot. jaare ko. ci sa tur wu sell wi. nga xam ne jëmm ji xam ne tur woowu mooy sa turu jëmm dëgg dëgg gi. tur wu dul wu dul woowu mu ne bépp tur bu dul tur woowu de. aw melo la. aw melokaan la waaye du moom. jëmm ji dëgg dëgg moo di allah waaye nag turu jëmm ji dëgg dëgg dëgg moo di allah mooy ismu zaati nga def ko mu ne nga yow mii de nga def ko ni mooy astaghfirullah ci wirdu laazimi téeméeri yoon mu ne bu dee werd bi nga xam ne mooy allawazim bi ngay taxoo nga def ko téeméeri yoon ma ngi leen di wax charte lazim ñu déglu ko bu baax mu ne boo jógee ci astaghfirullah fooy dal ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy allahuma salli ala sayyidina muhammadin fatixi muy salaatul fatiha ah, mu ne tabaarakallaahu toog nga mu ne toog nga ba nga gannaaw ba nga matee ba nga matalee téeméeri astaghfirullaha ci misaal ci misaal me toog nga nag ci saal bi nga xam ni ci lañ la war a woowee ngir nga xaar ki lay woo ne la man nga yegsi ñu ne la ah si nga bon ñëwal waaye fii nga jëm de duñ fi tudd kenn kenn fi tudd kenn yàlla rek rek lañ ciy tudd nga teg ci la ilaha illa allah la ilaha déet benn buur di jaamu wala ñàkk daa jaamu di lor wala muy jëriñe illa allah Muitaluk, yàlla muy taalluq muy taalluq ak taxalluq ak taxalluq ak taxaquq waaw taalluq taxalluq taxaquq waaw bi nga ràcc alof mooy mooy sa namm yàlla mu ne yow mi nga xam ne yaa ngi tudd yàlla sa xol ci boppam moo namm yàlla sëriñ Babacar Mansour mooy wax ni mu ne sëñ Bay Mansour si mooy wax ni ku dara yitteelu lu dul bëgg dem képp koo xam ni dara yitteelu la lu dul da nga bëgg a jóg ngir dem te amuloo kàttanu dem te amuloo kàttan ngir dem xamuloo yoon te yow miy bëgg a dem xamuloo yoon. yàlla baaxale ngëlam te loolu. yàlla baaxale ngëlam te loolu nga yore. nga nga nga nga génn ca. nga xëy génn ci ngëlam loolu. ci gis ku am kàttan. nga dajee koo xam ne am na kàttan. xam na fa mu jëm. ka xaw ka am kàttan bokk na ca xam na fa mu jëm. man te am na lu ko yóbbu. te amna na li lu ko yóbbu mu ne yow mi bëgg dem bul sonn gis nga ko xamne amna katan xamna fa mu jëm xamna fa nga bëgg jëm da nga jël sa lepp rek nga jox ko ko topp ko moy taalluq mu ne bu fekkene taalluq ñëw na mu ne nag des na taal taxalluq ya. mu ne jikko ye ya nak nga jëm ko ab ngir andando ba neex yalla modi al karim yalla neena mom moy aji tedd mooy alkarim nga jéem tedd mu ne yow mii nga xam ne da nga bëgg a dem maa ngi lay dénk na nga jéem a tedd. ci sa jëflanteeg sa bopp yow. mu ne tedd ba na ko dalee ci sa bopp sa jëflanteeg sa bopp. mu wóor la ne sa jëmm moomuloo. mu ne de mu ngi lay wóor ne yow mii sa jëmm ji bu doon yow kenn doo taxaw bay jëflanteeg kenn. mënoo dem nag bàyyi ko. waaye nag sa jëmm ngi nii taxaw da nga war a dem ànd ak sa jëmm. te doo jëmm ji. te yow mii sa bopp sax doo jëmm ji. jëmm ji ay outil la la yóbbale. mu ne jëmm ji sax ay outil la yoo xam ne yàllaa la ko jox yóbbale la ko. waaye sa xaqiqa bi tax ñu di la tudd naan la diw. mu ne ngay wuyu di moo di roox waaye sa dëgg dëgg dëgg dëgg li nekk ci sa biir jëmm ji te nga xam ne moom la ñu la war a tuddee ba nga mën a nekk nit ma ngi nekk ci sa biir te gisoo ko te ma ngi ànd ak yow. su taxawee. mu ne nit jëmm nit bu taxawee. loo làmb ci yaramam rek am am na tur. mu ne lépp loo teg sa loxo teg tudd ko am na tur. soo làmbee li leen ñu ne loxo. mu ne nga yëkkati làmb ne lii lan la ñu ne loxo la. lii lan la ñu ñu ne lii lan la nu mu tudd ñu ne bopp. lan la ñu ne tànk. ñu naan mu ñu ne lii lan mu ne tànk. gémmiñ gémmiñ. nopp nopp bët lépp bët. loo laaj loo daj lépp loo daj ci cëri nit am na tur. nekk sa bopp ñu ne kawar. ba ci la nga xam ni sax na ci sa diggu bopp ñu tuddee ko karaw. waaw kon yow ana mu ne kon bu fekkee ni loo laal am na tur yow ana nga. ah kooku kon ay outil yu mu ne kon de ma ngi lay xamal ni loolu nga yore yëpp ay outil yoo xam ne yàlla la soob mu jox la ko. tànk yi dafa ne dee ci dox. tànk yi de jox na la ko. waaye def la ci digal nga dox. waaye inna allaha yamurukum an tu'addu al amanati ila ahliha wal amanatu kulluha mu ne loolu yëpp nga xam ni cër yooyu yëpp yàlla jox la ko nag ay ay ay ndénkaane la. wala budda min yawmin turaddul wadaa'u waaye nag bis a ngi ñëw de ka la ko dénkoon dana de ndénkaane dana dellu ci moom inna samaa wa basara. waaw yi dee ci mu ne ma ngi la ciy dénk yow yàlla nee na bu dox ci yiw dama la ko dénk. bët yi bët yi. ci xool yiw na ciy xool yiw. bul ci xool lu lay fag looy fàggoo bàkkaar. bul ci xool mukk loo xam ne da nga ciy fàggoo bàkkaar. làmmiñ wi wax ci luy defar. làmmiñ wi na nga wax luy defar. te bul wax luy yàq. te bul wax mukk luy yàq. ak lépp rek bët yeeg tànk yeeg yëpp waaye tey moom xam naa shérif bi ñu xool alhamdulilah si. su ko defee mu ne kon bu ko defee. nga jikkowoo ko mu ngi yooyu nga jikkowoo ko nekk kariman nekk ku tedd nekk rahiman nekk ku bari yërmande karim la raufu rahim waaw mu ne waaw inna allah bi naasi la raufu rahim yàlla ku yow ku yërëm nit ñi la mu ne yàlla ci boppam day ku yërëm mi la ku yërëm nit li ñi nit ñi la yonent bi itam bil muminin raufun rahim yonent bi ku yërëme la ku ñeewante la. sifata ar rahmati war rafati. mu ne njëggal ak yërmande yi. ni ko yàlla laate ci boppam la ko laate yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne noonu ko yàlla jëlee teg ko ci boppam noonu la ko yëkkatee teg ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi na wax ne taxallaqu bi yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na na ngeen jikkoo jikko yàlla. nga ci léegi. mu mu ne jikko yooyu nga xam ni moom la doon wax jikko yooyu ngeen jikkoo ko yéen nit ñi. mu ne génnee na taalluq génnee taxaquq léegi ma ngi ci àqu ta taxaquq mu ne nag martaba bi nga xam ne moom la nit ki war a jóg ginnaaw bi mu jógee astafirullah ba ñëw ci salaatul fatiha muy muy ba tey rek mu ne ba tey rek mu ne ngeen jikkoo taxalli taxalli summiku waaw ngeen summeeku nag ba seet ci astafirullah ginnaaw ba nga xamee ni def nga astafirullah téeméer bi téeméer ba set nga set nga wecc taxalli mu ne nag ak nga taxalli nga sol nga sol nag ban mbubb gën a rafet ban mbubb nga war a sol bu gën rafet gannaaw bi nga jógee ci astafirullah te mooy mbubbu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy mbubbu allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliqa walxaatimi lima sabaxa nasir alaq biraq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala ali aqa xadrihi wa miqdaari alazim sol nga ko mu ne sol nga mbubb ma daal di ngay dugg tajalli waaw. taxalli mu ne taxalli la woon. taxaqu taxalli taxalli. su mat a jëli su mat a jëli. nga gis nag. mu ne nag nga gis nag. ay ay loo. ay ay loo. di nekk nag. bi di nekk nag. ci jawharatul kamal. ci jawharatul kamal. fi matxi sayid rijaal. fi matxi sayidi rijaali. sallallahu alayhi wa sallam. الله نور السماوات الليل ومن من جوهر الكمال دال الله أجنور الله يلا أجنور أجن الله وسلم الله الله مصلي على عين الرحمة الربانية وليقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفوه المعين والنوري ونوري الاكوان المتكونة الادمي صاحب الحق في توبار الاكوان المتكونة الادمي صاحب الحق ربان البرق لا استعيد ظل الارباح الماليه لكل متعرض من البحر والاواني ونوري كلامي الذي ملأت به كونك الحائث بأمكنة مكاني اللهم لدلوا مدلوا كير اللهم صل وسلم على على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين معرفة صلاة كتاب لكم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق التنزيل على الإفاضة منك إليك إحاطة النور المتظم صلى الله عليه وعلى السلام تعرف بها إياه واو واو دعني alternate في دكان تبي واو واو دعني alternate دعني جوجي في دم في جوجي في دم فلرك كنبو كنبو liggéey bi sotti na. mu ne mu ngi nuyu suñu mbokk jigéen ñu baax ñii. di leen ziyaara bu baax a baax. di leen bëggee bu baax a baax. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. seen jotaay bii mu ngi leen di xamal ni du neen mukk mu ne na xuppe baax na léeg lee waaye bégle it baax na mu ne na nga bégal jullit yi ñi gëm ndax nekk na ci yàlla ay ngëneel yu mag a mag lool lool waxuñu ko pour kenn tëdd mu ne déedéet waxuñu loolu pour nit ñi tëdd rek di nelaw waaye ku ca dëgër law ku ku ku ku ko deful ngir cëslaay mu ne loolu de duñ ko wax ngir nit ki def ko cëslaay pour jéem a gën a góorgóorlu ngir mu gën a gën a góor góorlu yaakaar yàlla yaakaar yàlla nag. yàlla dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégalal jullit ñi. mu ne yàlla ci boppam moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga bégal jullit yi. ci ne maa ngi leen di xaare. man yàlla maa ngi leen di xaare. ay ngëneel ay ngëneel. ak i teraanga yu bëree yu bëri lool lool lool lool. yàlla na bu mu ñu ump. yàlla na sidna nee ngeen tàllalee ñëpp seen loxo def seen yéene sidna nee na gis na li ngeen ko jox te muy hadiya mu ne daje bi yàlla bu muy suñu mujj daje waaw waaw waaw waaw bismillah mu waaw euh, uh-huh. papa alaaji Fall dafa yóbbante ci Maodo am lu mu ko sàkku ngir mu xamal leen ko gannaaw bu Maodo demee ba Maxtaar Kebe wax na ko ko xaj Malick nangu na ko bu baax a baax a baax. xaj Malick xaj Malick rek xaj Malick xaj Malick wax na amin ndànk ku nekk li nga bëgg soxna yi ku nekk li nga bëgg ak ngóor ñëpp ku nekk loo bëgg rek yéene ko mu ne képp ku am bëgg-bëgg não soxla mu jaaxal la lool nga yéene ko yàlla dina ko faj incha allah